asalaamaaleykum euh, tey le samedi euh, comme d'habitude euh, am contenté ak mbégte recevoir at leen encore ci suñu plateau di nuyu suñu invité yi di nuyu particulièrement suñu téléspectateurs yi nga xam ne du ñu fidèle di xaar émission c'est-à-dire bi tous les samedis ci heure bi ndax heure bi mooy heure bu baax donc tey dañuy recevoir madame Ndeye Awa Dieng Euh, actrice de développement, membre du comité directeur de, du parti euh, euh, du parti PCS Jëngu Tabax PCS Jëngu Tabax PCS Jëngu Tabax mhm. présidente nationale des femmes c'est bien oui, ça oui. du parti waaw d'accord après ensuite en deuxième partie nous recevrons monsieur Abdoulaziz Seck responsable à Rufisque chargé d'études au ministère de pêche et de l'économie maritime madame Dia na def. maa ngi fi euh, Fabienne. alhamdulilah. macha allah. Mhm. maa ngi euh, nuyu euh, yéen ñi ma bokkal plateau bi di kontaan vraiment ci invitation bi ngeen ma invité. Mhm. di nuyu vraiment monsieur et madame Ndiaye borom kër gi ndax nag boo duggee ci kër da ngay nuyu borom kër gi madame Ndiaye surtout. alors Lassana maa ngi lay nuyu. Mhm. mais nag di nuyu sama les téléspectateurs bu 2STV. parce que l' émission est très bien suivie. Euh, di nuyu sama président le président Boubacar kamara le secrétaire général national monsieur Mor Ndiaye et le secrétaire politique et le comité directeur. quand je comité directeur c'est le bureau politique les président de commission alors les euh, voilà. les sympathisants et sympathisantes euh, du PCS Jëngu Tabax. d'accord léegi Lassana moo la naxoon euh, dalal mais comme nag kii na garaawul demal rek. Lassana nuyoo moom moom moo mujj dalal la finalement di ko ci jaajëfal bu baax a baax di ko nuyu di yow euh, Fabienne. et di wax téléspectateurs yi c'est toujours un réel plaisir. Euh, di daje ak ñoom tous les samedis dans cette émission c'est-à-dire. dëgg la dëgg la madame Dieng kontaan ak mbégte la ñuy am di la recevoir ci suñu émission. Euh, voilà nga nekk jigéen boo xamante ne euh, da ngay représenter toutes les femmes du euh, les femmes du RENAFES et là tu es la présidente aussi des femmes du mouvement RENAFES bi nga xamante ne Boubacar Camara moo ko jiite. parti léegi dafa nekk parti. parti parti. mouvement mouvement la nekkoon. mouvement la nekkoon léegi un parti. léegi c'est devenu un parti. voilà parti PCS Jëngu. PSS. PCS Jëngu Tabax PCS Jëngu Tabax. voilà parti pour la construction et la solidarité de la solidarité. de la solidarité d'accord léegi euh, pour rentrer dans le vif de. de de l'émission pouvez-vous yow mës est-ce que mën nga ñu expliquer les objectifs du réseau des femmes pour la solidarité et l'entraide dans dans dont vous êtes la présidente. voilà maa ngi lay euh, euh, remercier si question boobu ndax balaa may dugg ci politique di ànd ak le président Boubacar Camara man ça c'est à part mais je suis actrice de développement je suis la présidente du réseau des femmes pour la solidarité et l'entraide ay euh, gox-goxaat ak i dëkk ay femmes yu am solo bokk ci macha allah may profito si occasion bi di nuyu. le commité directeur bu euh, du réseau euh, macha allah ñu nekk ay femmes yu jàmbaare. Mhm. Euh, femmes yoo xamante ne dañu jóg taxaw pour le développement de notre pays amul nag partie yëpp nag ñoo ci bokk pratiquement ñun chef du affaire politique. c'est ay femmes yoo xamante ne sociale si lañ njëkk a yëngu. Mhm. sociale di jàppalante entre aide quand je dis solidarité entre aide bi si biir. ñun dañuy def lu mën a am ci réew mi dugal nañ si sunu loxo pour jàppale jigéen ñi nga xamante ne ay jàmbaar fàq tëdd lañu. Mhm. fii ci Sénégal macha allah donc euh, région bu nekk am nañ fa ku ñu représenté mais itam ñu faxe ba góor góorlu ba nekk en link avec euh, l'institut de management de Dakar dont le le le monsieur Mor Ndiaye moom moo nekk le directeur général ñuy liggéey di fa former nag ay femmes. ba yeneen i dëkk itam ak yeneen i kilifa ak yeneen i partenaire gis ko si ñun di jàppale seen i femmes di leen aider di euh, je peux dire financer lépp lépp ba ñu am seen ay diplôme ñun noonu la ñuy def bi mbas bi ñëwee également def nañu tout yamuñu rek si jigéen parce que jigéen moom moo jur donc xale yi itam dañ leen si boole mm-hmm. surtout euh, xale yi nga xamante ne ñooy les enfants de la rue Euh, taalibe yi. Mhm. bi mbas mi ñëwee am na liggéey bu am solo bi ci réseau des femmes pour la solidarité et lentre l'entraide liggéey voilà. Mhm. d'accord Alassane. oui euh, solidarité ak euh, entraide quasiment pareil euh, mu nekk nag ay volets yu am solo ci réew ndax ñi ñu ëpp doole ci àdduna bi sax ci biir bu ñu jàppalantewul du mën a dem yéen ci ban vole ngeen di intervenir pour jàppale soxna yooyu ak ndaw ñi. bon par exemple si volet social. quand je dis social il y a des femmes yoo xamante ne am na benn niveau boo xamante ne egguñu fa par exemple si étude mm-hmm. mën nga yem CM2 et man comme dama dama yàgg di dox si leadership féminin damay bëgg ñooñu ñu former leen organiser leen aider leen les appuyer financièrement mm-hmm. si je dis financièrement du man maay génne mais yàlla suñu borom boole nañu ma ak relation yoo xam ne avec des partenaires yoo xamante ne dañuy jàppale femmes yooyu ba nga xamante ne ñu si bëri casé wu nañ am nañu seen diplôme ñu ngi demal seen bopp. Mhm. si sur la transformation fruits et légumes céréales locales leadership féminin et alphabétisation. Mhm. parce que dañu jàpp ne réew kenn mënu na dem sans jigéen. te ñooñu toujours par exemple bu ma demee si côté pêche euh, euh, euh, maa ngi nuyu Fatou Sarr mi nga xamante ne moom moo jiite. Euh, femmes yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci euh, euh, pêche bi mhm. maa ngi fa war a dem semaine prochaine parce que euh, comment dirais-je transformation kii bi li ñuy mhm. def ci géej bi yët mhm. bi loolu loolu les ressources halieutiques halieutique ah, halieutique maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ak quatre cent femmes et quelques yi nga xamante ne jàmbaar la mu ngi leen yore foofu maa ngi fa war a émission bi moo tax tey demuma fa mais dama amoon loo xam ne dama fa waroon dem. Mhm. ñu mel noonu dañu nekk genre euh, euh, euh, spécialiste ci li ñu nekk. quand tu parles ne nit ki ingénieur la parce que dafa jàng ba am fu mu toll ñoom jànguñu. jànguñu mais am nañu expérience ak loo xamante ne ak fulla ak fayda si liggéey bi ñuy développé ba nga xamante ne dañu war a def. femme leader yi nga xamante ne dañuy def dañ leen si war a boole ñun ñu ñoo wax a dem approche si daam la ces braves daam la nga xamante ne bu toogee expliquer la même bu fekkee pulaar la mu expliquer ko si pulaar bu fekkee olof la mu expliquer nga xam ne du am benn gêne avec les femmes yi nga xamante ne dañu nekk ingénieur dañu nekk leneen si njàng mi ñu xam ne dañu nekk au même pied d'égalité d'accord dinañ ñëwaat foofu dinañ ñëwaat foofu hmm. parce que li nga wax dafa am solo parce que euh, yow ci également membre du RENAFES réseau des femmes travailleuses du Sénégal et actrices de développement mm-hmm. léegi xalaat nga euh, que les femmes sénégalaises sont assez émancipées aujourd'hui pour euh, nekk ci loolu nekk ci loolu ñi ngi ciy dox ñi ngi ciy dox ñi ngi ciy wax en dafa am loo xamante ne sax commencé nañ ko nampatal ça veut dire que boo demee tey si école yi c'est les jeunes fii ñoom ñoo gën a raw fuuf gox ñi donc côté boobu sax gis naa ne bu nu suñu boppam dimbalee tuuti rek ak suñu mamaay ak suñu aîné yi nga xam ne ñoo fi nekk dañuy gën a jëm ci kalam ci côté boobu. Mm-hmm. bu ñu yàlla suñu boppam ñu continuer jàng bi ñu continuer ko et rester. Mm-hmm. il faut que les jeunes filles. jàng et rester à l'école ça veut dire que continuer mm-hmm. parce que bu fekkente dafa am loo xam ne dañu ko bëgg comme l'a si bien dit euh, Fabienne émancipation de la femme mm-hmm. balaa nga naan naam da nga fay nekk mm-hmm. ba léegi ñun ñi dañuy jàngat di yokkaat parce que dafa am vision bu ñu am si réew mi am lu ñu bëgg te bëgguñu ñu dóot ñu baaraam ne ñu lii kat yéen ko bëgg et vous n'êtes pas capable te loolu il faut que ça cesse et nous avons commencé à le faire euh, réseau euh, en fait des femmes leaders ñu ngi former nit yi ñu ngi former jigéen yi te c'est des aînés yoo xamante ne tàllal nañ loxo ñun itam noonu la ñuy tàllalee loxo suñu ay doom. Mm-hmm. ñu ngi ci combat boobu. Mm-hmm. Mm-hmm. d'ici sous peu de temps Sénégal dafay changer. am nga statistique boo xamante ne euh, boo xam ne ni mën nga ñu wax tey nombre euh, ou pourcentage des femmes travailleuses au Sénégal. Euh, Sénégal euh, euh, euh, les femmes. dama ne est-ce que am nga statistique. concernant le pourcentage des femmes travailleuses au Sénégal. bon les femmes travailleuses au Sénégal bëri na mais macha allah euh, nekkul ni ñu ko bëggee woon la nag euh, Fabienne. Mhm. les femmes euh, travailleuses qui sont dans les sociétés attention. Mhm. da may laaj soit les femmes travailleuses. Mhm. soit ñi nga xamante ne ñoo nekk parce que jigéen ñëpp dañuy liggéey. jigéen ñëpp jàmbaar lañ. mais da may wax ñi nga xamante ne par exemple ñoo nekk ci biir. Euh, dans les services ou bien ñi nga xamante ne ñoo nekk xam naa ne jigéen ñëpp ay ay ay ay ay euh, liggéeykat lañu. Mm-hmm. Euh, tax jigéen ñi nag ñoo ëpp góor ñi. Mm-hmm. ça vedir booy wax jigéen ñi pour pourcentage bi foo ko natt dépassé na ko parce que jigéen ñi mm-hmm. ñoo ëpp góor ñi te ñëpp ñëpp ñëpp ñi ngi liggéey. macha allah ñëpp. Mhm. toutes les femmes sont des femmes travailleuses. mais vous à votre niveau euh, est-ce que comme euh, ni ko Fabienne waxee ñaata jigéen ngeen jot a accompagner ba tey jii ñu mënal seen bopp. di dimbali seen njaboot. voilà si ñun si suñu. Euh, si suñu mouvement. Mhm. voilà ñun. wax ma li ma jàpp man ci sama mouvement xam naa ne am naa quatre-vingt-cinq femmes yoo xamante ne ñu ngi fii si dëkk bi di liggéey neew ma nag dañuy liggéey si biir tubaab. Mhm. li ma liggéey ñi nekk ci biir société peut-être ay quinze lay yem mais ñi ci des yépp. dugal nañ leen ci ay camp yow xamante ne ñu ngi liggéey di daan seen doole mais nag ñun ñoo dem outil financement bu ñu leen jàppale pour que ñu bañ a toogati seen kër ñëw di liggéey ça c'est quatre-vingt-cinq femmes yoo xamante ne le réseau defagum nañ ko te dama ko xeeb ndax dinañ ko dépasser parce que ñu ngi nekk huit cent cinquante-cinq femmes mm-hmm. en fait su ma dee demee Diofior bi ma war a dem y a quatre quatre cent et quelques femmes dana si dolleeku donc je pense que daañu xaw a toucher les mille et quelques mhm. Mm-hmm. Mhm. n'est-ce pas mhm. mais quatre-vingt-cinq pour femmes moom la ñoo xam ne dugal nañu leen ñu ngi liggéey et j'en suis très fière ndax di durée bi bariwul mais ñu ngi sant yàlla parce que ñun ñoo ko dañu contribuer si ñu développement wu réew. Mhm. mais 15 femmes yi nga xamante ne nag dañ leen a dugal muy ay xale yoo xam ne dañu am diplôme ba pare te amuñu woon fi ñu liggéeyee dugal nañ dugal nañ leen ñu liggéey. Mhm. ba ñu nekk ba ñu ba ñu nekk ay salariés tey. Mhm. les embauches même sax naa ko parce que defe naa deux rek lañ si embauché wu. si 15 léegi da nga doon wax waxu pêche léegi ma bëggoon xam euh, quelle est la position de seen mouvement de seen euh, parti. euh, sur les accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne macha allah xam nga nag ñun suñu borom dafa ñu booleek benn leader boo xamante ni c'est un visionnaire parce que Sénégal xam nga il faut que nag ñu imposer les technocrates ñëw jiite réew mi mhm. c'est-à-dire euh, euh, programme bi le président Boubacar teg muy le programme tabax. Mhm. pêche yi li ñu ci am Euh, xam nga moom déjà dafa nekkoon euh, soldat. Euh, de l'économie. voilà mm -hmm. ça veut dire jaar na marine. Mm -hmm. alors ça veut il maîtrise bien le prés euh, le président Boubacar Camara tey jii bu ñu ko tegoon ci réew mi yii yëpp dootu ko fi gisati. ci affaire pêche. non seulement am nañ si ah. gis nga ma ne politiciens yàgg nañoo dig loolu bu ngeen ñu. waaw je vais vous dire que vous avez parlé de politicien. Mm -hmm. politicien et ah, politicien les hommes politiques quoi. Mhm. politicien et politicien dafa am xam nga olof la ñuy làq moo tax ñu naan politicien. voilà mhm. je veux juste dire que foofu damay taxaw Fabienne parce que politicien et politicien dafa am. Mhm. va ah, ci sa bu pensée. oui ba déroulé. voilà c'est-à-dire politicien c'est-à-dire bu waxee loolu rek damay jëngatu parce que. absolument je sais que en ce moment euh, po ay politiciens ñoo nekk ci réew mi. Euh, li ko wane rek mooy bërki démb li nga gis lu rëy li nga xam ne moo dal suñu jeunesse bi. c'est vraiment déplorable ma chère c'est déplorable euh, ñi fi nekkoon dañu nekk ay politiciens ñoo nekkaat ni ay poli politiciens jaxasoo ça veut dire que depuis Abdou Diouf depuis Ablaye wadd depuis Macky Sall AFP PIT soo xoolee tey ñoom ñoo ànd PS mm. mm. ñoom ñoo ànd tey ñoo ànd tey euh, gis a ci benn technocrate dugg fi et c' était depuis 60 ans ñu pare ba ñu pare si indépendance ba ñu amee indépendance ba léegi lan nga gis c' est vrai que am na yoo xam ne jot nañ ko fi def mais il il faut que ñu changer moment bi ñu toll. Mhm. jël réew mi teg ko ci bopp ay technocrates ñi nga xamante ne dara taxu leen jóg lu dul le mhm. développement de notre pays. 60 mhm. ans bëri na mon cher. 60 ans bëri na il faut que ça change. loolu moo ñu indi tey ñu ñafe pour imposer suñu imposer wuñu sax imposer suñu bopp la ñuy def imposer wuñu population suñu bopp la ñuy imposer pour que population bi gën a réfléchir mhm. xoolaat bu baax a baax naka la ñuy def pour teg ci buntu réew mi mhm. suñu président Boubacar Camara mu ñëw doxal technocrates yi yàgg nañ dugal seen loxo ci doxalinu euh, réew mi su ma jëlee sax exemple seen leader di Boubacar Camara ñëpp xam nañ ni comme ni nga ko waxee euh, ku yàgg liggéeyal euh, réew mi la nekkoon na nekk na ci yeneen entreprise kon ñoom yàgg nañ dugal seen loxo ci doxalinu réew mi lan moo tax résultat yi ba léegi su wéy taxawal le président Boubacar Camara bi mu nekkee ci biir administration la nekkoon mhm. il de la politique mhm. et la politique bi mu nammee juróom-ñetti at Fabienne mm-hmm. moomu la bàyyi si retraite mm-hmm. taxaw nag ne le Sénégal tout donné mm-hmm. le diggante le président Boubacar ak Sénégal dafa mel ne yaay ak doom yaay bi nga jur doom bi nga jur nàmpal ko tette ko jëmale ko fépp ba tey jii mu màgg warul wan ginnaaw yaayam yaayam mooy kan le Sénégal le Sénégal lui a tout donné école publique la jàngee da ngay dégg mu naan ndox yi ma doon paccax-paccaxee yenoon doon paccax paccaxee ba ma nekkee xale ba léegi si laay paccax paccaxee ça veut dire que Grand Yoff n'a pas évolué ak yeneen ak yeneen ak mm-hmm. yeneen loolu moo ko dugal tey mu dugg ci làngum politique mu tax mu bàyyi lépp retraite neex na mm-hmm. liggéey ñu lay fay chaque weer neex na mm-hmm. il a tout laissé et huit ans du ñaar du benn at du ñaari at dem nag créer mouvement am il faut qu'on me éclaircir que le président Boubacar Fabienne jogul jóg rek ñëw dugg ci biir parti il un mouvement boo xamante ne mouvement Y la et ça c'était pour accompagner la jeunesse sénégalaise mhm. Mhm. il a fait le maillage de notre pays voilà mhm. dem fu si nekk moo tax mu xam dëkk dëkkaat yeeg fu ne le président am na fa commune yeeg fu si nekk jàppale fa nag nit ñi et dans la discrétion léegi si immigration euh, irrégulière bi xam nga il faut que ñu ñëw ci en tant que mère de famille yow lan mooy sa regard si euh, l'immigration irrégulière et le sort de nos enfants qui meurent en mer. ma chérie euh, euh, dama nekkoon ci xam soo tuddee sama sama président dama xam. Mhm. li nekk ci xolam ak li mu yéene Sénégalais yi. Mhm. mën naa cee yeggale tuuti rek. Mhm. egg si li nga ma wax lu am solo je veux juste expliquer à monsieur la Lassana. que naka la def ba yegg si fii tey jóge ci mouvement bi nag si la jógee ci mouvement euh, def maillage du pays xam fii métti xam nga Sénégal dafa mel ne mag boo xamante ne dafa feebar foo laal rek mu ngi metti mhm. ba mu defee loolu organiser nag les jeunes am benn femme boo xam ne Awa Ndiaye moo nekkoon ca tête ba euh, monsieur Ngom euh, nekk vice-président ba ñuy liggéey liggéey bu mucc ay ba tey ñu egg si fii organiser les jeunes mhm. xam fa ñu bëgg teg seen tànk parce que moom jeunesse ak jigéen ñoom ñoo ko mhm. soxal ak i mag mhm. alors bi loolu passé si la si nga ñu gis ñu dugg ci langum politique bi mhm. gis nga ni ñu bloqué ci parrainage bi mhm. parce que xam nañ ses mhm. capacités mais justement man loolu moo ma jaaxal yàgg naa suivre les les activités de la génération mhm. Y ndax man mii di wax ak yow yàgg naa ah, def seen i seen spot bu ñu daan dem defi maillage ci euh, territoire national bi ngeen juge fa am vraiment représentativité bu ñu ko mën a waxee noonu ngeen ñëw dugg ci euh, politique bi bëgg a dagan baatu askan wi parrainage sax mosoo leen mënoo leen ko am xanaa gars dañ leen a xamul wala nu mais yow parrainage ñun ñu bloqué leen dama ne la réew mi ni muy doxee mu mel ne màgget boo xamante ne foo laal mi ngi metti mhm. am na ku gis nag sa euh, sa ndono di ñëw danga koy bloqué mais ñun dañu ànd ak yàlla mhm. parce que xam nañ ne yëf yi si ñun lay mujj dañu gëm yàlla bloqué nañ ñu bloqué nañ ñu mais c'est pas euh, dañu bloqué mais teewul xam nañ sunu valeur xam nañ suñu gëdd parce ñun sunu euh, le président Boubacar ce qu'il est en train de faire même les autres pays voisins mhm. ñi ngi ci wax ñi ngi gis des résultats mi ngi redresser ay réew mhm. tubaarkàlla si loolu la ñu dem ànd ak le président Sonko loolu moo indi ko Sonko président bi parce qu'il fallait que ñu choisir le camp euh, euh, Idy 2019 wala fale mhm. ñun nag ñun moo nekk suñu njiit nekk suñu leader mais daf ñu jox cër Fabienne comité directeur la dem woote ñoom ñoo choisir ñoom ñoo def vote Ousmane Sonko la président daal di gagné. Hmm. loolu moo ñu indi xam nga bu fekkoon leneen moo ñu intéressé dañuy dem faneen ah ça je ne vous le cache pas mais ñun ak Sonko ñoo bokk xëy na vision ak fa ñu jëm. Hmm. loolu moo tax il faut qu'on évolue. oui donc parce que heure bi dafa gaaw. Hmm. te bëgguma nga ñëw fi ba pare. Euh, te doo wax euh, li nga xamante ne euh, moom nga war a wax ak man question yi nga xamante ne moom laa pare pour laaj la. dama la laajoon en tant que mère de famille. quel était votre regard sur l'immigration clandestine irrégulière ak yooyu. mais mën naa ko def en deux questions. léegi dama bëggoon comme posé woon naa la loolu léegi yow lan ngeen xalaat ci seen réseau yan action ngeen def pour freiner ce ce drame. voilà en tant que mère de famille Fabienne ça fait mal de voir les enfants dem kii jóg di dem fi nga mhm. juddoo fi nga yaroo fi nga màggee wax fi tekkee soo sañoon foofu ngay toog mhm. mais soo gisee da ngay gis ne euh, euh, risque loo dem di def risque rek y'a problème ça veut que soit naa egg soit naa dee mhm. xamoon nañ ko ah? c'est déplorable ci jeunesse boo xamante ni ñu ngi gis loolu ne ñu ngi dem. maa ngi wax benn nit sax mu ngi ma naan Fabienne dafa invité woon koo xamante ne dafa jooy ba sonn mm-hmm. macha allah. Mm-hmm. nit ñi gis ne au moins am nga parce que yaay nga am na li la métti ñi ngi jooy rek ah euh, c'est déplorable loolu bu ñu amoon bu ñu faxe woon wàññi lu bëri loo xamante ne par exemple euh, euh, comme le président Boubacar li mu wax ne bis bu mhm. yoroon réew mi loolu lay lu mel ne conseil économique et social quinze personnes ñoo fay nekk feneen ak feneen vingt cinq personnes yooyu nga jéem a fexe ba yaxanal mhm. fexe ba ñu am ci réew mi loo xam ne xale yi ñoom ñooy suñu avenir de demain mhm. ça fait mal bëgguñu ñu dem feneen mais on a pas le choix bon ñun pour revenir si li nga ne suñu réseau li ñuy def Fabienne pour te dire que fayeekuwuma benn xale pour ñu ñëw def ci formation à l'institut de management et de Dakar de Dakar parce que le réseau est en ligne leneen lu may def xëy na man maa koy indi foofu pour mu rapporter leen mais pour ces jeunes je suis en train de chercher et je tends la la main à à à tous mes partenaires yi nga xam ñu ngi may seetaan bëgguma wax parce que ñu ngi may jàppale ñu ngi may jàppale bu baax te jeunes filles yooyu déjà maa ngi classé na cinquante jeunes filles yoo xamante ne c'était depuis deux mois avant lii di am pour inscrire leen ñu defal leen formation góor sax mhm. nee naa dañ ko siy dugal léegi parce que bu fekkee am nga si loo jàpp lu mu ndaw ndaw jéem a dugal ci xale bi civisme ak citoyenneté mhm. ak mhm. jom fulla ngox muy liggéey fexe ba xamante euh, ñun réseau bi lu ñuy def même bu ñu la wutalee pour nga liggéey duñu fa yem même bu ñu lay defal formation duñu fa yem sa waajur danañ ko xam dañ si impliqué jeune fille ba mu baax ñu xam ne man par exemple maa ngi nuyu Sadio Dramé bi nga xamante ne passage moom laa bàyyi euh, foofu noonu euh, dafa bokkoon si premier session bi ñu doon defee formation gis naa ko attitude ak jikkoom ay waajuram yaayam ak papaam dénk ma ko damay veiller si moom mm-hmm. di inculquer si moom ay valeur yu am solo mm-hmm. su paree ba mu gën a formé wu jël ko mu dem liggéey liggéeyam mm. dañ lay suivre ñu suivi boobu la ñuy dem. donc ñu ngi xeex côté boobu yéen ngi xeex pour ñoom. léegi est-il vrai que ce leader Boubacar Camara a eu une, une audience avec le président Macky Sall euh, est-ce que da ngeen di rejoindre la mouvance présidentielle. évidemment euh, am na audience ak le président de la République Macky Sall parce que Fabienne boo seetloo moment bi mbas mi di am le président de la République wax dëgg yàlla dafa def appel. à tous les leaders de l'opposition ñu ñëw waxtaan bi mu waxtaanee boo seetloo sax man am na boo xam ne def naa ko ci Revocap def benn vidéo de sensibilisation comme quoi mon mon leader avait dit que nañu euh, jàppale moment bi jàppale la ñu war a def le président de la République parce que loolu mooy yoon kenn waru wax parti kenn waru wax leneen ak leneen ak leneen pendant ce temps mon leader était à l'étranger en train de yi ñu soxla ko loolu muy liggéey fekk ko fi mais mm-hmm. teewul fekk ko fi waaye Fabienne macha allah vidéo yi mu def si tumbi 19 33 mesures yi mu génne 28 mesures yi moom la euh, gouvernement bi jël moom la ñu appliqué ba ci mille milliards yi ngay dégg si ñun la génnee loolu moom kenn du ko naatable moom Camara moom moo def loolu toog fa nag benn par benn wax ko ci soninke wax ko ci tukulër wax ko ci wolof vraiment Sénégal seet xam nañ ne nekku fi woon mais xolam ak xelam ak xalaatam e yàlla moo ko suturaal dimbali ko parce que dafa nekkoon foofu leneen mënoon na ko dal mais suñu borom laaw lu baax rek lay def ak lu rafet mhm. suñu borom nag indi ko président euh, Macky Sall xam na kan mooy le président Boubacar Camara mais moom moo demandé pour gis ko moom itam mosoo leen ko gis yenn yi mu di si dugg mhm. respecté nit la def te le président Boubacar Camara donne toujours des solutions mhm. absolument mosul dugg vraiment si ay xas nit ak ñun ñun euh, éduqué wuñu noonu mhm. formé wuñu noonu te loolu duñu ko def parce que ñun am na leneen lu ñu bëgg sénégalais yi dañu sonn solution nga leen di indil ñu xam ne kii am na lu mu ñu mën a. Hmm. waaye tooguñu di xas kenn baa ñu toog du critiquer hmm. rek vraiment hmm. on ne critique pas rek parce qu'on a envie de critiquer. et puis bokkul si ñun. dama bëggoon aussi ñëw. ci euh, bi ngay dugg ci politique bi. lan moo tax yow nga choisir ko moom. parce que man dama def benn enquête bu ndaw balaa euh, may kii si moom ñu ne ma kooku lu baax rek la mën a am. kooku euh, li mu yéene Sénégal ñaane leen ko gudd fan ak wér gu yaram. ma ne nit ki mais lu tax nga may wax loolu mu ne ma kooku ba muy tabax ba muy jëndal yaayam kër boobu moom amul këru boppam Fab yéen yaa ngi may euh, je vais pas gâter mon émission mm. pour parler sur le président Boubacar Camara un grand homme li nga ma njëkka laaj dafa ma yëngal je serai très fort pour wax ak yow mm-hmm. parce que bi may ñëw ci la président Boubacar Camara j'ai entendu du n'importe quoi mm-hmm. boobu mënoon naa dem ànd ak mouvance télé lay waxee présidentielle bi fi nekk mm-hmm. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen j'ai tourné le dos ci les politiciens ma ne sama réseau bi maa ngi ci am yàlla bu koor bi jotee maa ngi joxe ay dons maa ngi joxe ay téere alxuraan maa ngi dem si jàkka yi maa ngi dem si jumaa yi et j'aide les femmes et dans la discrétion lu bëri sax sama famille duñ ko xam parce que euh, je sais que yàlla moo ma nattoo may jàppale nit yi. Mhm. nit ñi di ma jàppale. mais bi ma ñëwee waxee ne damay ñëw à travers un grand homme moo tax ma xam ko tey waxuma sax valeur yi ma xam si ñoom mais dafa metti woon man ñëw naa nit def audience boo xam ne dama waroon gisante ak nit ku ma bëgg ku ku ma bëgg ma avancer mais il n'avait pas compris c'est dommage que je voudrais être avec le président Boubacar Camara ndax ay valeur ak yu ma gis si moom man je suis une femme boo xamante ne HLM laa dëkk maa ngi nuyu passage si euh, waa HLM ñoom Jibi njaay Adama mm-hmm. Anne et truc que man Fabienne kenn du ma kenn du ma influencé man da nga may convaincre c'est vrai que ki ma ci dugal dafa yàgg wax dugal ci Boubacar dugal dugal def defar ma ni ko man danga may def ndànk tekki-tekk gis nga bi ma waree dugg dama dugg parce que j'ai fait des recherches sur lui li nga ma wax nii dafa ma yëngal parce que yaayam dafa toog mu ne damay suivre tax si si si si si si documentation bi ma doon def j'ai entendu sa maman dire que Boubacar euh, su ma ko nee sax weer laa bëgg te weer ku ne xam ne ne kenn mënu koo indi dina ne ma yaay ahankay bu subaa dinaa la indil weer ça veut tout dire mm-hmm. man duma ànd kenn koo xam ne amuloo ngërëmu waajur mm-hmm. amuloo mu yaay parce que doo tardé tardel ma mhm. et j'ai pas mhm. bu may ànd ak yow loolu laay njëkk xool si yow bu ma la ko mënul laaj danaa def samay recherche bopp et muy ñii ma xam ne ñoo ko entouré ñëpp daf ma leer ne noonu la ñu mel mais Boubacar kenn du moom Camara sama président bi nga xamante ne tubaarkàlla dama koy ñaanal mu toog fii si kalamu bopp réew mi bu boobaa ñu xam ne lépp dëgg la coalition tabax bi ci kaw rek la ñu koy dégg. Mhm. parce que dafa yàgg def lu baax yàgg des fois ma toog si groupement de femmes yi ñu ne ma sa leader mus na ma may lii sa leader et man ak yow bu ñu àndoon tey muy sekk ak yow dara. Mhm. Fabienne da ngay jommi un grand homme su ma la waxul yow li ma sekk ak moom moom du ko xam te ku si nekk ak sa soxla. Mhm. néew di doole yi juma je peux même pas expliquer mais je sais que sa famille. papaam dem naa Fatick fekk ko fa. papaam boo ko nee Boubacar mi ngi ñëw dafay jóg defaruwaat. sañse ba jekk ça fait plaisir d'être euh, à côté de ces genre de personnes mhm. te saa bu waxee ak yow rek mi ngi la formé saa bu waxee ak yow mi ngi la formé mhm. fonk jigéen surtout mhm. jigéenu parteem daf leen fonk daf leen cëral te ku si ne mi ngi am na relation bu mu sëkk ak yow ku si nekk ak mhm. relation bi mu am ak yéen mhm. du ma ne je la présidente nationale des femmes rek li mu sekk ak man sekk ko keneen mhm. des fois mu sekk ak keneen loo xam ne sekk ko ak man parce que les relations diffèrent mais macha allah booy wër ku baax booy wër ku gore booy wër ku correct booy wut ku mën a dimbali nit booy wut nit bu maanu bu loxoom set te nous en avons besoin actuellement. absolument moo tax ma doon ñëw si loolu. voilà parce que nit yu bëri bëggatuñu léegi dugg si politique. parce que euh, li nga wax nii dafa raar te man dama laajte ñu wax ma. Mhm. parce que munoo def émission. di invité euh, une dame boo xamante ne si moom la nekk. Oui. te naam sax du dem laajte def investigation. Oui. parce que man du ma journaliste d'investigation. Oui. mais euh, di nga am looy looy laaj ci parti bi nga xamante ne moom la teg et gis nañu aussi. Euh, euh, son parcours enrichissant mooy li ngay wax ñun dañu bëgg euh, wóolu ñi nga xamante ne ñoom ñooy yore ay parti war ñu jiite bu ëllëgee dafa am ay qualité yoo xamante ne dañ ko bëgg gis ci ñoom non seulement doo dox ci mbedd bi gis ko et man am na ay nit yu bëri yoo xamante ne nee nañ ma que moom moo leen dimbali dans la discrétion te tegu leen bët donc et puis surtout les valeurs parce que kaay ma wax la mënuloo bëgg sa doom te bëggoo doomu jàmbur. voilà man balaa may bëgg damay bëgg laasana balaa may bëgg sama doom parce que loolu la yàlla santaane consa consem mais euh, euh, munoo par exemple bëgg a jiite réew mi. ba pare yow bu guddee ñu gis la ci ay lieux yoo xamante ne peu fréquentable xam nga. Mhm. peu fréquentable euh, yow defoo dara pour sa dëkk ba pare nga bëgg ko kii c'est-à-dire nit ñi dañuy xool léegi jikko yi ñu la ñuy inculquer nit ñi. Mhm. parce que kenn dofatul léegi ngay jël euh, sa temps di ko bàyyi di nekk si gannaawu benn nit donc moralité boobu man kenn saxalu ma suuka defe naa mosoon nañ ko fi invité benn yoon ci benn émission fii donc man euh, jeune ne nekk du ma nit boo xam ne damay tër bii wu benn nit di wax ay kii mais dafa am ay yëf yoo xamante ne man quand on m'a parlé de lui j'ai eu la chair de poule mu may fàttaliku nekk benn nit boo xam ne xëj na bugguma wax waxam fii moo tax ma ne woon loolu il faut ma laaj la ko parce que ñun dañu dépassé fi ñuy tàccoo nit. oui tàccu nit ci boppam te dañu xam ne ne aussi kuñ fi jàppalewul laasana doo dem. Mhm. buñ ñu bëggee fonto aussi ñu bàyyi leen fi samp jigéen. oui te bu boobaa jigéen bi mooy mooy am li mu bëgg am. Mhm. donc moo tax c'était important. que ma que ma ñëwaat si loolu parce que yenn saa dañuy def émission. Euh, di latte euh, benn nit boo xam ne ci parti la nekk. Mhm. te fekk yenn saay du xam sax président am du am mhm. temps. loolu am na fi. Mhm. donc pourquoi aller croire sur une personne boo xamante ne miser sa vie sa temps sur une personne boo xamante ne laasana doo ko gis. yoo xam nga ne 2S bi bu añ jotee ñu ñëppay dem ak añi ci bureau. Euh, madame Ndiaye monsieur Ndiaye xam nga ndax booli euh, euh, moo fii ñëw man itam loolu laa déggee lu baax si madame Ndiaye dëgg la ni mu leen bëggee yéen ñi liggéey ak ñu léegi yéen la gën a bëgg ay njabootam loolu de la mais madame Ndiaye réputation bi mu am ci Sénégal tubaarkalla ah loolu de c'est vrai li ñuy wax ne moom la dund caméraman bee diree moom la dund li ñuy wax ne wax dëgg yàlla derrière toujours euh, un grand homme y a une mm. mm-hmm. man itam damay wax fii tey derrière une grande dame il y a mhm. vraiment un grand homme mhm. Mhm. Euh, à côté ça veut dire que le président Boubacar du koy euh, jikko xam nga ñun dañoo amee njaboot soo nee da nga bàyyi politique ba ñëwaat di dugg ci liggéey ku mel ak mel ne ak moom euh, duñu wax dara si moom loo xamante ne di nga sëgg wala nga ne àccam da nga am itam ay waajur yoo xam ne dañu am valeur yu ñu def si yow bëgguloo kenn yàq ko bu njëkk dañ daan wax ne jigéen dafay dem politique ku dem di def politique baaxoo mën nga toog di def ak ñoom réunion ba deux heures du matin fulla ak fayda si recevoir ay audience mhm. boo paree ñu yóbbu la ba sa kër mhm. gunge la ba nga yegg nga dem dugg sa kër mhm. sa famille dañu koy xam dañuy xam ki ngay nekkal man saa su ne bi ma nee capp duggante ak moom sama waajur dañu ko xam parce que nag du ma dox si caaxaan duma ma dox si ñàkk fulla waaye du ma ànd ak kenn koo xamante ne damay dend ak moom ci politique muy def naka su dul noonu ñu naan ñi ngi ko gis fële suba ca baax ba ñu naan ko ma ngay def lii ma ngay def laa ça nous avons la chance quand même. Ah, ma chérie soxlawuñu loolu. parce mm-hmm. que bëgguma sama doom di ne ma yaa ngi tax tardé si koo xamante ne vraiment in ne vaut pas la peine. Mm-hmm. ki may àndal il vraiment la peine nit la. Mm-hmm. koo xamante ne yar nañ ko fan ko war a yaree. kal la si doxin gu am solo am vision nag si Sénégal. am yéene si jigéenu Sénégal. absolument am na loo xam ne daf ko def spécial mënuma la wax mhm. programme le président Boubacar mais yàlla nañu fi déegi bàyyi mhm. yàlla may ñu gudd fan ak wér gi yaram mhm. teg ko nag si suñu buntu euh, kaw réew bu boobaa euh, bu nga xam ne da ngeen koo tabax ndax euh, ñëpp xam nañu yéen ak Sonko yéen a doon ànd ci coalition uh-huh. jot na uh-huh. fan yi ngeen génn nag uh-huh. tracer seen bopp seen voix mais contexte bi mu amee moo xaw a ëlëm xeluñu bari ndax contexte audience la dañoo dégg ah, ni voilà dafa président Macky Sall yàggul dara ñu ne Boubacar Camara génn na ci coalition jot na taxawal na coalition bu beesam lan moo tax tey ji ngeen génn coalition boobu taxawal seen bosu bopp. jàmm jàmm bu sedd guy moom lañu am ñoon waa PCS jëngu tabax ak coalition jot na. Mhm. Ousmane Sonko dañu ko xool waroon a ànd ak moom ànd dañu toll moment bi ñun ñu nekk suñu ginnaaw. Covid bi rek euh, Fabienne je peux même pas mhm. Covid bi li ñu jot ci ay nit yoo xamante ne du ñu ñëw. par téléphone. même Covid bi 7000 entreprises yu tëj. ah mille entreprises yu tëj solon la l'ANSD. waaw moom laa wax dama hmm. ne. Eh, li nga ma wax si ne si affaire. Hmm. coalition jot na ma bëgg ko leeral hmm. c'est-à-dire voilà. dama la bëgg wax que ne nit ñi gis nañ loolu teewul ñu ngi doon ñëw si sunu parti. dañu dem nag ba toll foo xamante ne amuñu lenn ndax bi ñu ñëwee coalition jot na jox nañ ñu sunu cër ba si jigéen bi euh, ba si jigéen bi may mun a jéey. ba si jigéen bi may mun a jéey lépp lu muy def si jigéen dañu jox suñu cër bu mat sëkk amuñu fa xaar ma yàlla ak kenn mais nit dafay toll foo xamante ne yére yi ngay sol sax daf lay xat bu xatee foog nga uti utiwaat mmh. dañu am nit ñu bëri ñoo xamante ne dañu ñëw ànd ak ñun te ñun gis nañ ne Sénégal suñu programme tabax bi faaw ñu imposer ko teg ko liggéey ci ak sénégalais yi jàppale nañ ñu si mmh. je peux pas ku nekk mu ngi ñëw wallahi yàlla zib mmh. d'ici sous peu de temps di nga gis tabax Sénégal dafa soxlawaat ñu tabax ko loolu moo tax coalition tabax tam mi ngi dem de day dem de. Mhm. coalition tabax dafay dem. bi mhm. Omar Pène di wooy naan damaa bëgg a tabax ma ni suñu coalition tabax bi tubax tubaxkal la. Mhm. macha allah yéen ngi jéem a natt seen doole. ci non non fi ñu toll nii. sénégalais yi ñoom ñoo ñu wóolu. sur le terrain non sénégalais yi ñoom ñoo ñu wóolu. ba démb ba ki démb yaa ngi gis. ñaata membre ngeen am ñi ngi dem suñu montage comité comment. ñaata membre ngeen am. ñaata membre la ñu waaw. doo ko mën a répéter ak exactitude wax ma la loolu dañu ah. bari ma ne la sama sama sama sama sama président di nga ko dégg waaw di nga ko dégg d'ici trois jours incha allah d'ici une semaine di nga ko dégg te bu déggee di nga xam ne gaynde wax wax na dafa war a def sortie bu mag ma ni mhm. du benn rek mhm. mhm. la ngeen di waajal ah li ñuy waajal xëy na wax ñu ko parce que dañu am si suñu kalam euh, euh, donc euh, élection mairie municipale ñu am députation bu war a ñëw présidentielle war a ñëw ñun dañu war a def lu ñu war def Sénégal ñoom ñoo ñu soxla. Mhm. ñoom ñoo ne am na visage yoo xam ne bëggatuñ ko kalamu Boubacar Camara la ñu bëgg ak ñi mu àndal. Mhm. te ay de grandes personnes des personne de valeur di mouvement ay nit ñu ñu ñu am expérience. Mhm. fii ba diaspora maa ngi nuyu euh, au passage yéen ni yéen i Manel Fall tubaarkàlla liggéey bu rafet bi nga nekkee foofu ñu ngi la ci sant di ci gërëm ma ne la. ñooñu ñëpp dañu àndandoo. Mhm. ne Boubacar yaa ñu doy ci jéngu ci ci ci coalition tabax. coalition mhm. mhm. coalition tabax rek. mais est-ce que a ngi am ay nit yu bees comme ni la ko Laasana waxee est-ce que am ngeen ay. mais loolu laa nit yu bees yoo xamante ni ñu ngi ñëw. Euh, euh, ay jeunes wala ay nit de euh, personnes de ressources parce que quand on sait que mm. dans un parti il faut des personnes de ressources mm. des nit ay nit yoo xamante ni ñu ñemee terrain aussi parce que moom si Camara ni ma ko déggee ñu koy wax noonu c'est quelqu'un d'assez rigoureux oui dans le travail. Dans sinon kon du réussir lu muy lu mu réussir noonu daal donc est-ce que euh, am na ay nit yoo xam ne ñu ngi ñëw. des personnes ressources yoo. xamante ne am ngeen même vision am na même vision que que yéen daal pour. Euh, tabax Sénégal moo tax moo ma ne la. Mhm. d'ici trois jours d'ici une semaine. incha allah lu bëri dina feeñ incha allah. Mhm. ba ki dem dama def émission ak ay jeunes yoo xam ne jeunes kese. de mhm. Goudiri j'ai pleuré parce que dama ne xamuñu ma. xamuñu le secretaire général Mor Ndiaye. xamuñu président Boubacar Camara et c'était émouvant ci da ngay dégg ay jeunes lenn rek moom la ma wax ne ma dama commencé ñu may attaqué ma ne ko nag man kenn du dugg ak man ci politique naan ma ay dañ ma attaqué mbéjum kalam jeune nga yaa koy fajal sa bopp. Mm. ñuy ñafeel seen bopp. Mm-hmm. ñu ngi si ñaata membre ci ay département département di Adama Anne waa Awuré ci peux même pas comprendre ay Ibrahima Ngom. ay Sevin Fallou mais ci macha allah. d'accord euh, euh, nit ñi ñëw nii waxuma la nag nit yi ñëw nii kenn dong laa ciy wax. Mm-hmm. mu Yelli Manel Fall ma ca Suède ba ca Oslo. Mm-hmm. Ah, kooku mm-hmm. defe naa ne ku ko déggul aussi war nga ko xam. ñeneen ñi si biir nag duma ko wax. fi mu ne nii coalition tabax mooy bomb Sénégal. man day awa jéem a ko wax. léegi euh, Lassana il faut ñu ñëw ci. Euh, kiiwu jigéen ñi comme dafa leen di dimbali. parce que mhm. man bi may préparé émission bi ak moom mu may woo nekk elle avait une réunion avec les femmes am na ñoo xam ne da leen di jàngal pour transformatrice pour ñu mën a xam. Mhm. nan la ñuy euh, la ñuy mënalee seen bopp mu am euh, dépendance. Mhm. indépendante financière. wax ñu tuuti si si ñooñu parce que li ñuy des si heure bi. waaw foofu maa ngi fay nuyu sama benn doyen. Euh, maman Germaine Dieye ak euh, maman Naomi seen yi nga xamante ne tubaxkàlla euh, ak Ndeye Diagne Ndoye si puisque ca ca ca Mbour ñooñu dañ may jàppale xam nga chance bi ma am Fabienne mhm. mooy nit ñi dañuy ñëw di ma jàppale mhm. formation ma wax leen a fay xaalis bu bari ñu parce que am na lu ma sekk ak ñoom wala am na estime bu ñu am ci man mhm. du tey nag dinaa leen jox waaye dama ne la espace bi ñu am il faut nga ñëw fa ma invité la ah, nga xool wala nga dugg page suñu page Facebook réseau des femmes mm-hmm. pour la solidarité et l'entraide je, je suis très fière ak euh, madame euh, Mbengue Mbengue bi nga xam ne moom mooy trésorière bi mm-hmm. secretaire général bi nekk Maguette Diop Maguette Diop moo nekkoon pour vous dire que réseau bi macha allah Pape Gorgui Ndong ministère de la jeunesse mm-hmm. moom moo nekkoon euh, secrétaire am ni ñu leen di dimbalee dañ leen di organiser mais nag bu ñuy former du ñu bëgg jël ay femmes yu bari dañuy soxla jël quinze femmes mm-hmm. am na nag ñoo xam ne dañuy fay mm-hmm. parce que foofu ngay jëlee pause café boo ñëwee rek da ngay jubal dem ndékki mm-hmm. ah sol sa sa sa tenue añ bi aussi ñoom ñoo la koy defal des fois ambiance bi dafay neex ba nga xam ne Fabienne ñoom ñooy toggantu ci seen biir cest à boo fa nekkee nekk jigéen non seulement di nga xam di nga autonome di nga bëgg euh, opérationnel di nga bëgg Euh, bëgg li ngay def sa kër sax li ñu fay def euh, doo am problème mu ay toggantu ak yooyu mais daañ la indi daañ la yee parce que même boo jàngul dara. Mm-hmm. boo fa ñëwee yaa un certain monsieur Ndiaye boo xamante ne daf may jàppale si alphabétisation monsieur mbay di ma jàppal si leadership aussi. Mm-hmm. macha allah ñu restauration bi tubarkalla dañ leen di fay. Mm-hmm. am suñu équipement yépp nag maa ñafe maa ko ñafe. organiser yooyu dafa metti mhm. parce que yow doo sax toog am temps toog mhm. yow yaay dem yëpp parce que doo bëgg kenn kenn kenn mais maa ngi remercier partenaire yi am na ambassadeur boo xamante ne mi ngi soog a ñëw Sénégal toog bëgguma wax je veux pas parler absolument ñoo xamante ne ñu ngi may jàppale mhm. des chefs religieux yoo xam ne ni ngi may jàppale ñoo xamante ne ñoo ngi nag fii nag ci gouvernement bi nekk nag vraiment ministère de la santé il faut que ma tudd ko parce que dañu ma jàppale macha allah jàppale nañ ma te mënoon nañ xool lii xool lii xool laa mhm. au moins sa j'ose le dire il faut être honnête seen rôle la ñu def seen rôle la ñu def mais mënoon nañ def leneen c'est-à-dire nit mhm. di nga ko teg fenn mhm. mu ne kii du ko jàppale kii du def lii kii du def laa ma fait yeneen ministères yi dañu war a suivre. dañu war a suivre comme euh, man moo tax bi ma gisee ñu reconduiraat euh, mm-hmm. euh, ministère Diouf Sarr ça m'a mm-hmm. fait plaisir ma bind lettre. pour mm-hmm. remercier ko parce que def na liggéeyam. mosuñu toog mosuñu gisante. mais damay wax li nga xam ne moo am. parce que tam doo ne ñëpp ñoo bonandoo. am na loo xam ne am na fii am na ñoo xam ne ñu ngi def am ministère yoo xamante ne suñ la xamee nii sax télé xam ne ci d'entre autre chose la faale. mais il a fait son wax dëgg yàlla ça quand même je tenais à le mu ngi lay dégg waaw léegi si tu as une question. ñu oh, ñu bëggoon naa ko rek xanaa ca waxal ah, benn affaire bu uh, ndaw mooy seen idéologie ndax mhm. d'habitude nit ñi bu ñuy dugg ci euh, politique dafa am mbir moo xamante ni moom moo leen ci euh, dugal am na ñoo xam ne exemple euh, coalition bi ngeen nekkoon Sonko par exemple ñëpp xam nañ ni Mamadou Dia lay lay topp am na ñeneen ñoo xam ne dañu la naan idéologie Senghor socialiste yi yéen mooy seen idéologie ak ndax seen réseau boobu noonu nga bokk du ngeen ko xaw a jël femme yu fa nekk xaw leen tuur ci parti waaw moom laa la wax lool bu fekkoon dañ koy politiquer ci télé laa nekk mhm. gis nga mbumba ni mu sore ay femmes xamuma leen te xam nañ ne maa ngi nekk ci président Boubacar mais xam nañ ne maa plus ci affaire développement dama ci nekk yàgg ci mhm. dañu def groupe boo xam ne dañ ma ne sax bul duggagum def ma rek at mi mais bul duggagum ne euh, wax ko ci pulaar ñi bëgg ndey awa mhm. sa à dire am na fu ma aw ak ñoom jamais je ne vais jamais faire ça maa ngi wax ci télévision et je veux pas que nit ñi di ma xoolee beneen non loolu ça c'est à part et c'était bien avant xëy na lii dafa ñëw rek touche bi mhm. te Boubacar Camara bu fekkoon dafa ñëw indi leneen politiciens yi fi nekkoon du ma ànd ak moom de mais ne kaay ma wax la lii laa na wax noonu xam nga lu tax mu wax ko parce que dafa gis ñu bëri ñoo xamante ne en général dañuy def lii pour mhm. kii mais moi je sais que que ça longtemps que nga nekk si Euh, non seulement et puis tamit dañu àgg fenn foo xamante ne laasana booy politique aussi dafa da nga war a euh, euh, dimbali mm-hmm. ñi nga xamante ne ñoo fi nekk parce que tu ne peux pas aller toi bien pimpante mm-hmm. aller mm-hmm. vers les les femmes ñoo xamante ne elles n'ont pas les moyens bu de de de fructifier ñoom seen seen seen liggéey et tout ça yow nga toog ba pare doo def dara moi je pense que la politique bu am euh, si c'est pas de la politique politicienne politique am na njëriñ te ñun ñëppay def politique surtout mhm. nous les femmes tu sais comment parce que fu yàqu dañ koy dem defari mhm. fu yàqu dañ koy def mhm. dem defari yàlla xam na ne man su ma paree sama émission yi ba ma saw sama ay carax am na feneen foo xam ne ne war naa pour lijjanti nii ak nii donc loolu mm-hmm. dafa am solo mm-hmm. euh, laasana social yooyu ngay def c'est important loolu moo tax xam mm-hmm. naa man dama lay suivre di peut-être ñu ngi soog a kii mais dama lay suivre di xool bu baax te c'est important tu pouvais bel et bien dire que nekkoon nga Miss Sénégal pare woon nga ci loolu mais je vu que danga nga imposer sa bopp ñëw wane leneen wax ne da nga bokk ci réew mi da nga ci war a dugal sa loxo c'est ça nous avons besoin des femmes te dinaa la wax leen de ay bu femme yi jógee. kii mhm. laa sana. révolution oh ah. solidarité féminine tubaarkàlla macha allah. ñu ngi mhm. togg loo xam ne yàlla na génn ak jàmm rek. amiin allah mais je sais que sama leader. idéologie mhm. euh, je sais que sama leader. dégg na idéologie waaw moom laa wax je ah. sais que sama leader. Euh, nekkoon na ci watu Cheikh Anta. je sais que ah, lu bari jël na ko ci moom. ça je l'ai senti. j'ai senti que. Euh, ma ne lii rek la mënoon demee parce que damay dugg nag ba ci biir. Mhm. xëy na sax am na chaque suba mënuma toog ci semaine bi te jëluma trois éléments yoo xam ne non. amuloo jàng Sénégal tubaarkàlla pour mu am ah da nga koo sopp. loolu c'est important. dama ko sopp moo tax su may wax si moom du ma ci am sago tu sais pourquoi du ci am sago ce que je dis dama ko dama koy sama xol lay génn. et moi quand je parle avec toi moi je badine pas. quand je parle avec toi di nga xam li may wax ak yow. dëgg ça les larmes aux yeux. voilà ah, nit ku baax la yéene naa ko Sénégal. gars yi nañu defar ba mu baax. ñu pousse jox ñu. Euh, euh, incha allah waa kon nag léegi euh, <laughs> le temps <laughs> imparti jeex na. léegi xanaa nga tàggoo que ñi la doon seetaan sa xarit yi. ak les membres du réseau. et surtout les les téléspectateurs de. c'est-à-dire de 2 moom laay moom njëkk a wax parce que. Euh, bëri nga torop ñu ne nit ñi la sopp euh, surtout émission bi bi ma bi ma ma jë envoyé bande annonce bi euh, c'était émouvant j'ai reçu tellement ay ñoo xam ne sax ay kilifa lañ mm. kilifa yoo xamante ne si diine laa wax dañ may ne dañuy toog di ko suivre j'ai j'ai tellement d'audio ñu may wax ne ma c'est une femme yoo xamante ne ay kii technique lay joxe c'est une femme euh, j'ai entendu beaucoup de choses de bonnes Merci vraiment sur vous Merci a été vraiment un plaisir de partager avec vous vraiment euh, su développement réew mi di nuyu nag sama waa réseau mm-hmm. réseau des femmes pour la solidarité et l'entraide di wax que ne waa Dior maa ngi ñëw samedi prochain foofu laa jëm euh, euh, waa Mbumba ñi nga xamante ne dañu ma sopp di ubbi group tax mm-hmm. xamuma leen mësuma leen gis maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm te bëgg boo gis yëg moo koy fay mm-hmm. waa HLM attention waa HLM ñi fa def groupe tuddee ma ko am lu ñu yéene ci man ak dem sama diggante man ak HLM xam nañ ma xam nañu maa ngi ñëw HLM. am na lu mag lu may may lu may préparé si euh, euh, coalition tabax mais sama waa parti jigéenu jàmbaar ya fa nekk sama président je l'admire beaucoup un grand homme un grand monsieur waaye nag dafa nekk dend ak koo xamante ni c'est monsieur Mor Ndiaye kooku itam sérieux cest dire li ma gis ni ni entouré mm-hmm. le président Boubacar Camara Pape Marsec les jeunes macha allah tubaarkàlla mag ñu am fulla comme ay bàjjan Ndeye Gueye kenn mësul gis loolu yàlla na yàlla def Sénégal jàmm def sutura vraiment un un un grand bisou à ma maman sama yaay mi ngi toog di jàkkaarloo ak man ak sama papa nu may suivre dafa mel ni xale bu ndaw laaj <laughs> avec ma grande sœur et ma famille kii moom vraiment mhm. appuyé ñoom ñoo tax ma jëm des fois ma dem ba benn heure mhm. mais mosuñu xalaat si man lu bon mosuñu xalaat si man lu ñaaw ça me fait plaisir. Mhm. et je veux même pas parler de ma famille. Mhm. et de mes enfants samay doom dañu ma jàppale. Mhm. ak sa ay xarit sama ay xarit. waaw munuma munuma ñooñu moom. dëgg la macha allah maa ngi gis téléphone bi mu ngi kii mais macha allah. dëgg la donc. Euh, kontaan naa euh, li voilà merci beaucoup madame Awa Dia. Euh, donc lii dama koy jóg kii si endroit wu le président Boubacar Camara. Mm. ñun ñu fi dégg ñu jigéen ñi nag xam nga dañu sincère. li li mu wax rek. Euh, euh, euh, doy na léegi lu ñu lay ñaanal rek mooy gudd fan ak wéegu yaram parce que xam nañu ne sa dundu am na njëriñ te soxla ñu ne ay leader yu mel ni yow donc yàlla na la yàlla may xel ak dal ba nga xamante ne doo mën a décevoir sénégalais yi mais particulièrement les femmes les hommes qui sont mm-hmm. dans votre parti. Mm-hmm. xam na ñu lépp li ngay def pour Sénégal. Mm-hmm. donc su dund am na njëriñ mais may féliciter sa yaay bi nga xamante ne moom moo la jox weer boobu. avec tes parents c'est important. voilà et je pense que Kaffrine ou Fatick je sais pas. c'est Fatick Fatick. Euh, que toutes ces personnes yi nga xamante ne ñu ngi foofu aussi. ils sont fiers de vous. voilà donc euh, ñu dem jëli euh, def def benn petite pause dem jëli suñu deuxième invité.